élection yu jaar yoon am na ay jafe-jafe yu bëri yi nga xamante ne ni war nañ koo xoolaat programme ñetti élection nag daal di jubali ci système bu jëm ci parrainage bi ak texte yi nga xamante ne ni gis nañ léegi dafa yàgg. tim daje mel nii la ñuy gisee ay yoon yu ñu mën a génn ci guute yi ñuy nekk ci affaire élection booy xool ci ndaje yu mel nii la ñu indi woon xalaatu régler problème kan mooy jëkk déposé ci problème mu euh, parrainage bu xam nga ne bu ñu daan def parrainage daraan am sax xeex yaa ngi fàttaliku xeex bi amoon conseil constitutionnel maa war a jëkk a déposé jëkkuma déposé donc ci ndaje yi mel nii itam mën nañu le waxtaan nu ñuy ji régler problème mu doublon yi lu jëm nag ci wàllum troisième mandat itamit waxtaanee nañ ko ci ndaje bile. ngeen li ngay tuddee troisième mandat source de tension la acteur politique yi noo ko war a ñoo war a sukkandiku ci constitution bi xool naka lañ koy naka lañ koy régler euh, ñun euh, si suñ kuréel gi en tant que société civile ku ci nekk ci ñun am na position ci mbir mi waaye daf dañuy jàpp mbir moomu feneen lañ ko war a régler société civile bi nag ci waxtaan yi ñu jagleel élection yi ñoom ñee nag joxe nañ yenn proposition lu ci mel ni dajale position wu politique yi waa itamit jéem a indi ab waxtaan ci diggante politiciens yi ngir rek ñu mën a régler yenn ñàkk déggoo yi nga xamante ne ni saay su ne day feeñ ci lu jëm ci wàllum processus électoral bi lee